waaw dañuy yeggali Aba parce que parce que tey jii fi mu toll ñu woon si démb ci wàllu théâtre yi amoon démb foofu lañ toll te Aba dinaa la wax leen la démb dañ ci mën a taxaw tuuti parce que euh, baax na bu nu toogee ci demee nii comme euh, amoon na théâtre yu daan am démb maanaam mag ñi daan nu ko tegal mu doonoon loo xamante ne da nga daan toogandoog say doom di ko def. kon donc yooyu yëpp dafa xaw a raar ci réew mi euh, baax na tax euh, bu ñu toogee ci télé yi ñu waxtaan ci loo xamante ni dañ leen di fàttali démb. comme donc euh, bu ñu ci defee lu bari tamit liñ ci fekke lu bariwul tamit liñ ci foraatu rek ñu fa ñu ñu baaxee xale yi. waaw ndax liiti lee liiti yaay amoon na fi. Mm-hmm. waaw liiti lee liiti yaay jamonoy tey lu ngeen ci wax. loolu boobu bokk ko musaa dégg xam ne théâtre commencé na bu ñi dañ lay yee ibbi sa bopp boobu abaa réew mi mel nii xam nga abaa abaa abaa kër yi léegi kër yi yàqu na da daan dugg ci kër euh, benn njël moo fay am li ma lay wax déglu ma baax képp ku dëkk ci kër gu mag xam nga ne kër yu mag yi démb ak kër yu mag yi léegi bokkul mhm. da nga daan sañ a dóor doomi jàmbur dara du la ci fekk da nga daan euh, nekk ci mbedd magam jëmma jubbanti la boo ñëwee doo ko am fitu wax ka sa pap dëgg la parce que bu boobaa boo ko waxee da ngay am ci euh, képp koo xam ni mu ngi ci ndaw nekk ci gox bi yow dëkk ci gox bi tey mag da am ci moom waaw loolu ah, loolu da ah, loolu ne jaar na ci mhm. loolu jaar-jaar boo xam ne ku ne jaar na ci mhm. mu doon loo xamante ne ni loolu la mag ñi xamoon boo nekkee ci kër gi sa sa sa sa rakki papa am na droit jubbanti la mhm. dara du ko ci fekk waaye léegi boo gisee kenn ku ci nekk euh, boo duggee ci kër yi neexatuñu kër yi non non abaa neexatun boobu bu njukkan bu añ ci kër lébu yi wala kër gu mën a doon bu nu añ bu añ bi taajee ngeen toog di añ booba muccaat am na <laughs> booba muccaat am na indil muccaat mais Mame Rane tey boo indee démb Mame Rane <laughs> mu njëkk ma waa doxaat mu njëkk ma kullu man jëli la daay man siyaas simple na nga xor loo ci xam ah. ah. bi man benn bi yow booba loolu amoon kilo mburu <laughs> ah. booba ndoxaan am na loo am ndoxaan mu ngi nii ndoxaan mee a yomb léegi booba ndoxaan dafa mitti woon waaw bu da ngay science bi da koy préparé samedi barki bay lay ngay xaar naan samedi samedi booba nit ñi dañoo so fonkoon samedi yee samedi xamaa samedi léegi la ñàkk fay de mais samedi <laughs> ah non ba bàyyi moo yow di amaan li nga daan toog di def lan di fompi dal naan sam damay doxaani baraaye ba ma nit tiramisin tax <laughs> ba septième fois ah non non baraaye ba ceinture gi jeex dëgg la boo ñëwee ndeysaan ah, ah, ah baraaye ba ceinture gi jeex waaw day jeex tak léegi bu njëkkoon ah, duggal xool ma booy bi moo amoon man yoon nañ ma ba tey yooyu moo amoon léegi xale yi sax ceeb léegi dangay ngay am sa gel waa kër gi mën nañ laa bañ sax gis doo loolu lay gis <laughs> ay naa noonu lay gis dix francs nga de message mu ñëw. ah noonu la dem doo dem doo ma sax xam seen bu dëkkër nu mu mel. booba jigéen xamu fitu dugg ci kër. xam nga xam nga gis nga Dakar ne dort pas bi mm-hmm. maanaam booba sabar gu njëkk. boobu jigéen ni mel xam nga maa ngi la koy wax naa lan giddaara kidda da gidda eh, booba moon booba booba booba booba booba bu nit tëgg seen dëndayee ngay jëm booba njaxat maa ngi koy nuyu dooma ma ngi nele ma njaxat eh, béy ñoom Pape Samba kële ma njaxat moo ko jur. dëgg la waaw mu doon xale boo xam ne bu yëngoo nga xam ne ndaanaan la bàbbe la. dëgg la kon bu ñu daan ay ay sabar ak yooyu da nga daan toog ci. waaw surtout waaw boobu ngay ñëw waaw loo am rek jël loo am na ak doyloo ko boobu loo am doyloo ko. <laughs> bu njëkk ba boobu njëkkoon waaw loo am da nga koy doyle aba bay ma neen <laughs> waaye léegi fii toll nii ak fii réew mi toll. fii réew mi toll xam nga mm-hmm. léegi. lépp dafa yàqu léegi sabar yi sax neexatul. tubéy la ñuy sol. boobu boobu boo boo demee sabar boobu dañuy wër du sër waaw booba booba booba ndeysaan euh, Ibrahima nga Ibrahima Ibrahima may nga euh, ndeysaan euh, gaañu na. yàlla na ko yàlla yërëm. booba tama la yoroon. xaay mm. xaay boobu da kaa mënoon xaay xaay xaay xaay <laughs> waaw yaa da lay loolu yàgg loolu man waxuma tey xam nga yaa ngi may ci rajo bi aba nga ne ma ah ji ma ne la man man tooguma fii pour tey man démb am fi dëj. dëgg la waaw man fii ma toog aba mm. démb moo moom ngay waxtaanee waaw démb waxtaanee. Mm. xam nga réew mi neexoon neex goo xam ne booba ñamu mbaam amoon na. dëgg la booba jaay mais tamit nañu waxante dëgg booy waxtaanee démb da ngay bàyyi ba toog ak maire wala paa. waaw déedéet paa ki mu toogal nii paa la. ah, ah paa ay ay ay ay <laughs> ah. ay mais xam nga lan moo tax nu indi ko mooy mu waxtaanee moom démb yow ngay waxtaanee. waaw ngay waxtaanee tey yow yow yow yaa ngi ci tey de man maa ngi ci démb. yow kay loolu def ci tey. waaw am na liggéey fi amoon jaay jaay naa waaw ba daje ah tey euh, naa kuy jaay mat laa ngelaw lu jug ah ba jaay ah, mat laa ci ngelaw mus nga kaa daje ak moom. benn waay laa dajal muy jaay mat laa mu mel ni koy njoros barki bay lay la mat laa bi dem mu demee ba nii mu dee amaag moo man ay yàlla kan mooy jënde mat laa yii ay yàlla menu sàkkali ba jàmmale. ngelaw mu kuy njoros. waa nii nii la nga jàpp mat laa bi demee mu dem wala jaay ndaa xam nga am na ku doon jaay ndaa ah, ñëw caare ñu jox ka mu añ ba suur. laal ka muy taat ndox mu sedd mu pare ñu wax ba sonna mu ne du yóbbu ndaali mayu yeen naan non daa maye ndaali kooku de kooku gore na am tabax la yenu tabax ñu jox la nga añ ba mu jaat aba bay ma neen de